asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu moo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax xam ne jéego yi ngeen di dox di ko doxal ku tedd kooku ñépp bokk mu doon yëngatu ki loo xam ne ni sagub yoonu mbir yépp la woon sagub sax diini lislaam jëpp la woon ba mooy sax ma ne sagub nit la woon ndax ay doxalinam ak jëmmam ak melokaanam ak jëfam amul ku kuy nit ko ku soxlawul muy sëriñ maam Mor Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal rawatina nag cër bi nga xam ni ñëpp xamal xamal nangul nañ sëriñ Tuubaa ni alxuraan moom yi alalam la yàlla def man ko xam ko doon ko def ci nit wëlbati ko it ki fi nekkal sëriñ Tuubaa dénk ko ko mu ci def jëfin joo xam ni ji kenn ku ne xam na ni la taxu ñu dénk ko mat na ko te matale na ko la ca jëm ci moom ak li ci jëm ci ñëpp ku ci ne xam nga ni sëñ Maam Mor moom fa fa mu nekkoon ñëpp la fa nekkaloon <clears throat> loolu nag li ci gën a yéeme mooy xam-xam bi mu amoon ci diini lislaam xam ko ci yoon yi ak li ci nekkoon te li mu amoon ci taalibe nga xam ne loolu mu daa mel ni la sëñ lu jaayoon jënde ko ko muy njureel gi ko sëriñ Touba jur mu jaay ko jënd ko taalibe loolam ku ne xam na ne sëñ bi am na lu mu ko ci cëral lu rëy loo xam ne ni ko xam-xam nga loolu kon ñu di ko siyaare nag ki nga xam ne moo fi nekkal seexul xaddim muy seex Mamadou Muntaxa di ko siyaare tam sëñ Abou Albaraka mi nga xam ne moo fi nekkal seex Mamadou Fall leen ko siyaare yéen ñi nga xam ne itam mi yéenanti ay bokkam di ko siyaar njabootu boppam gi nga xam ne ñoo di doomam ak soxna yeeg taalib yi ñëpp ku koy siyaare daal mën ko ko siyaare kuy nit rek waxuma murit dong waaye kuy nit rek rawatina jullit yi waaye kuy nit rek mën na koo siyaare maam ndax ñi muy defar ku mu ci defar moom loraange nit naa bàyyi bañ a loraake mën loraange mënante naa bàyyi bañ a bàyyi koo ci yow jëm ci ku yàlla bind xam naa loolu Sëriñ war naan waraahi kullu xalqin xaqaman xalaqahu moom xam naa ku ko diggoon la ba noppi di ko dox te di ko doxal ba noppi di ko def te di ko deflu nun day wax dëgg yàlla duñu fàtte mukk ba ko alaaj baar yebale yaakaar loolu suñ ma sëñ Moodu ñaan mi ñoom àndoon na ca mu yebal ko Kawlax mu ñëw ci bis bi nga xam ne ah, bu doon suñ jëmmi bopp ji rek ëpp na ca ba ba rembat waaye nag bi muy bis boo xam ne bi ci la Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall gise woon te suñu wayjur doon ko def foofee ca Kaolack laaj baar yebal ko fa nag mu ñëw fa ñëwin wow moom ku dem fi moom da nga am loo mën a ak ci loo mën a yóbbaale mu jariñ la ndeem taalibi nga comme ñëw ci yow dana la bàyyi loo xam ne lii di nga ko mën a jariñoo ndeem ndegam taalibi nga mu bàyyi nu fa lool mu ko fàtte mukk ci kàddu yu rafet yu dal yu teey yu baax yu am njariñ ak melokaan woo xam ne itam ba léegi si duñu ko fàtte na mu tooge woon jotaay bu mu jotaayoonoon noonu ak jot am ak lam jotal mu bàyyi ko ci ki nga xam ne moo ko yebaloon te loolu ëpp lool ci noonu ndax euh, ab jotaay moom wax dëgg yàlla ëpp nit ñi waaye nag xëy na nit ki moom bu amee ab jaam fu mu nekk rek faaw dina ko fa fekk ngir euh, la muy la muy alalam wax la waate nag mu ñëw fa ci ndigal laaj baax loolu daal xam naa ni nun des na ci nun des na ci képpit koo xam ne yàlla def na moom fekkoon na la fa noonu noonu mu ñëwee woon ci itam lu mu doon doon doon ak njuuma ci nun fen ko doon fekk ak fu mu mës a lajee ak moom jikko jooju ak melokaan woowu loolu rek lan fay fekk muy koo xam ni kii maanaam ku bëgg a baax wala ku am lu ma bëgg mu baax ko mu doon ku ne desal nga ko borob yéene boo xam ne jotoo ko war a def ku ne xam na ni bi mu demee kenn ku ne am nga yéene jot soo ko xamoon soo ko xamul woon bëgg nga koo xam soo ko xamoon ba noppi itam réccu nga la la raw ci moom kon moom alal la joo xam ne dem na waaye nag bàyyi na fi lu su ko mën a roye bàyyi na fi ñuñ ko mën a roye te loolu yaakaar naa nit ñi lu mel noonu danañ ci jàpp lu bare bare loo xam ne mën na ma wax ne ci moom lañ koy xoole ndax nit moom jëmm sax ma naan nit ndax xam naa ëpp na loolu sama gémmiñ moom maa ngi tuub loolu waaye jëmm la joo xam ne jël wax dëgg yàlla ku fekkee lu mu jëm lii fekkee lam doon dund di nga xam yow li la dese lan nga ci war a def ak noo ko war a def ak ci loo ko war a def def li li ko ko may na day mel ni lim ëmboon ba amoon ba lim ëmboon bari na ko ëmb koo xam ne kii ci al ci xam ak yar ak teggin soo góor góorgóorluwul lool doo am kilifa waaye moom dafa ëmboon loo xam li nit ñi baax ñëpp mun ñu weesu ëmb lu toll noonu bu nag mu nangoo am kilifa bu nag déggal ko di di jëfe te kenn du ko tere dara loolu nag ku ko yàlla baaxee nit ñi nga bokkal wala ña nga xam wala ña nga dëkkal bàyyil nga leen loo xam li njariñ la lool buñ ko fàttewul mën nañoo am ci luñ tënk lool donte jàngu ñu defuñu dalaat danañu am luñ mën a tënk loo xam ne mën nañ caaroy ba bañ koy fekki di ñaan gi nag liñ ci gën a séentu mooy xam na ni ko ko ñaanal yàlla dina defal ci ñaan gi lool mënoon nga ko mën mënu koon a am ci leen dul ñaanal ko kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu dajeeg Cheikh Modou Fallal moom te jëf ju rafet joo jëf ju rafet jooju ñi nga xam ne ci moom la ko ñëpp xam leen ñuy àbb kaddu yi ko yi jiitu ci di ci wax loo xam li kenn ku nekk ci noonu xam nga ni boo doon waxit doo mën a yegg foofa sëñ bii dégg naa ko keroo keroog man damaa fa damaa toog fii seetaan émission ba mu jeex amna na sax ben audio bo xamni bi defena biñ koy def bobu sëñ baa dundu ku ñu wax arun euh, cisé mom mom ci mom moo ko jox mu waxtaan ak mom sax bobu sëñ baa ci waye waaye xam naa ne daal yéen ngi liggeel ku mata liggeel yeen yéen ngi topp tànk yéen ngi euh, waxloo nit ñi lo xam li ki ku ci wax li nga xam li nga xam jërul xel mu guddu jërul xam-xam ndax jëru ko jëlul xel mu gudd jëlul xam-xam da ngay wax rek li nga gisoon ci moom ak li nga jëflante woon ak moom ak li nga fekke mu di ko wax ak li nga gis mu di ko def loolu daal mën na cee mën naa doon jàng boo xam ne bi bu fi jógee loolu moom du fi jóg kon ñu koy siyaar yoonu murid wépp di ko di ko siyaare diinul islam yëpp di ko siyaare waa kër Cheikh Mamadou Fadel yépp di ko siyaare tam talib yépp waaye di ko siyaare di ko siyaare nit ñëpp nag Sénégal yépp ndax moom rëcc la ci dara loo xam ne waroon na la ci moom te defoo ko moom moo gën a yomb ni li ma ci waroon defoon naa ko waaw ku ko ci kenn ku ne bi nga ko xamee gis nga ni ku baax nga ni koo xam koo bëggatula la gëj bëggoo koy gëj a gis waaye bi mu demee nag xam nga ni am na ku dem koo xam ne yóbbaale na yéene joo xam ne ji bëggoon nga koo def te defoo ko kon ñoo ngi leen koy siyaara baax a baax di di bu baax a baax xam nga mu xel ko xam-xam moom mooy tax a mën wax waaye yaar yooyu dara dafay nekkul ko defee it ak it ni mu demee moom ñaan dal yàlla ak yoon bi ak Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall teeru ko te teral ko yàlla ku bëgg ngay ku ne bëgg ngay moom ci nekkam bi mu demee li mu am ku ne bëgg nga koo bëgg nga koo am waaye nag caaxaan mënu koo maye ndax nit ñi dañoo ba dañoo gaaw loolu ci loo xam ne coono koy maye. ñun la bax ñu jàll xala la yoon wax la wax ni yoon wi bax na bu noppi yomb lool nak dama def ñu su amone ku dem fekk fa tànku serigne touba wala nga fekk fa tànku doom yi wala tànku dongom yu mag yi ndax kenn ci ñom ko xamni ki fa nga jaaroon ba ya nga yegg fi nga yegg lu yomb la fa yegg la amul kon nak mën mën ñu def lool bu noppi nag yow nga bëgg ci ñom loolé bu noppi ñu naan la li jaaral ni baax na te yomb na lu mu mën ta yomb ndax bu yombee ku ne mën na ko am jërul jërul yàq say nelaw waaye ñoom ñi nga xam ne noppalu woon guddi noppalu woon bëccëg waxtu woo leen demee mënu leen a bett bu fekkoo leen ci loo xam ne li war na la te loolu moom mm, moom lañ xamoon ci moom ñun mm, daal jotaay ñu defa defa def ak moom ak ñëw gi mu ñëwoon foofee yi ak euh, bi soxna si gaañoo sax wax dëgg yàlla man waxoon na ma ne mën naa fa ñëwaat waaye yàlla def ba tey ba tey ba tey jotaatu jotuma foo demaan daja di se nañ waaye gise waatuwuñ foofu ca loola kon ñi ñu ñaan daal yàlla taas ñu ci barkeem xam nañ ni foofee mu ne moom moo ko gënal fii fuuf waaye yàlla dimbaluñu tam ba wàllu ci tuuti ci li nga xam ne ku ca am dara ci lenn ci li mu amoon rek ku ca am tuuti lu mu bari bari sa njort mën naa rafet ci fa nga jëm kon ñu ngi koy ñaanal baax a baax a baax jërë jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf baax a baax